wàññi njëg yi ci réew dikkati na altine ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juin day la ñuy wàññi njëg yi ci réewum Sénégal Sud Quotidien naan maan altine ci la léppay leer ci njëg nga xam ne wàññi nañ leen ci réew mi laas yéene kaay naan maan njëg yu yees yi altine la Le Quotidien Le Quotidien naan kon kaay nag ma xamal la dëgg ji nga xam ne moo am ci njëg yi nga xam ne ñu ngi koy wàññi moom njëgu mburu gi kilo bi dina yegg léegi ca fanweer boulanger yu Sénégal yi nag am teg réserve mesure bi war a tàmbali altine gii ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi ñoo fas yéene contrôler prix yi xool ba xam nag ma ne la sénégalais yi nga xam ne ñooy jaay dees na ñaabari ñaabari nangu prix yooyee waaye tam appliqué ko fi nga xam ne moom moo di réewum Sénégal lee fa naan kon en tout cas fermeté day la ci état bu Sénégal àndal source aar naan kon gouvernement gi ma ni la weesu na attente yi nga xam ne moom la sénégalais yi doon xaar ndax nag gën na def ay jéego ngir gën a wàññi la nga xam ne moom moo du njëkk yi rawatina mburu mi ko di jee la ko di jee naan kon déet wàññi mburu googee ma ni la xëccoo am na ci ak yi na leer coow la nag direct news daal di ne ma ndax mooy mënees naa dem lebi bor ngir ngir fay ay bor professeur Amath Ndiaye moo koy xamle ci direct news muy xamle ni bor yi nga xam ne ñu ngi leen di gën a yóot ci réewum Sénégal ngir fay ay bor nag day delloo ko mu réew ci wàllu wi nga xam ne moom moo di intérêt yi faible lool waxtu woowu nag la ñu war a leb léeg-léeg du la wàññi dara waaye léeg leg sax mu bénéfique ci yow professeur naan ba tey ak dette publique bi nu mën a toll la ca ëpp solo moom di yoree ko yorin wu baax wu sell wu leer tax ba la nga xam ne moom nga koy yoree mën a nag dëgër këcc ngir mën fay bor yi te bi ne ñu ngi ciy soobu bu pétrole ak bu gaz réew réewum Sénégal loolee nag mën naa tax ñu mën a justifier bor yi nga xam ne mi ngi yokk te loolee it man naa yokk carrément koomu réewum Sénégal Le jé Le Quotidien nan man amado ngay wax moom Amadou Ba génn na ci cell ga mu nekkoon ancien candidat bu élection présidentielle yi ma nga janoog nag ay responsabilité am moom am naan ñaabar ñaabar yegg ci responsabilité jël ko laay def kay fas naa yéene opposé wu bu baax ci opposition sax laay nekk doxal ko nag waaye attention ab politique waaye itam républicaine man am moom laay def Amadou Ba naan fas na nu yéene ayu bés nga xam ne ñaabar ñaabar nañ ci jëm tabax ay cadre yu yees yoo xam ne mani la dees na andi ay lëkkaloo ay booloo ngir Sénégal tegu sunuy loxo Le Soleil naan kon waxtu woowu day entrée en sixième bi nga xam ne ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin lañ ko jàpp digitalisation bi matal nañ ko ci réew mi lu toll ci ñetti téeméeri junni ak benn yu toftal juróom ñetti téeméer ak ñaar fukk ci ay candidat ñoo war bokk nag ci yooyu les preuves yéene kaay bi naan man di man man Le Soleil ma xamal la ni ñaari président daje nañ ca Paris muy chef de l'état Bassirou Diomaye Diakhar Faye dem seeti nag président Abdou Diouf moom président Diomaye nga naan maa ngi jaajëfal président Abdou Diouf ak njabootam ci dal gi nga xam dalal nan ma ko waaye tam di sàkku subhaanahu wa taala mu guddal fanam ngir mu man ñoo leeral yoon wi nga xam ne ci dal ak teey la koy leerale waaye tam di wéy di ñu amal ay conseil laas yéene kaay naan kon ak lu mu xat-xat jàppal ni hôpitaux yi ci boppam teg nañ leen ci divan parce que leen yéene yedd diggante accueil ba séjour ba communication ba fas yéene nag doxal ci réew mi laas naan man ak lu mën am jàpp leen ne njëg yi wàññeeku na bokk ci mburu yi 24 heures yéene kaay naan ko déet Amadou Gaye président bu fédération nationale bu boulanger yu réewum Sénégal nee na amuñu waxtaan ba déggoo suñu diggante nguur gi ngir appliquer prix yu bees yi attention ah loolu moom faaw Sénégal xam ko laas naan kon boobu APR ña ngay orienté ña ngay tàccu waaye tam ña ngay critiquer régime président Diomaye bu yees bi 24 heures naan maan waxtu woowu moom Amadou ma ngay jëli responsabilité am naan dees na dugg ci opposition union boo xam ne éthique politique lañ ciy wootee askanu Sénégal gënal nu sunu mbébét ci wàllu politique sénégalais bu ci nekk bëgg-bëgg am gën a yitteel sunu bëgg-bëgg nguur lii la Amadou Ba xamle laas naan maan ak lu mën a am jàppal ne kaaf datu ñaar fukki fan benn ci weeru décembre jàpp fukki fan ak juróom benn ci weeru janvier 2026 moom la war a amal Coupe d'Afrique des Nations ba foofee ca Maroc ak lu am mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm